laaj na nu gën a delluwaat suñu borom nag eh, te eh, sunu lay nga xam ne moom lañ jiital ci suñu diggante moom eh, ci toroxlu teewlu ñaan ñaan ko moom mi nga xam ne moom mooy dafa ko dindi mu def jàmm gën a def jàmm ci xol yi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 Euh, ñu ñëpp teewlu kenn ku ne ci noonu rek gën euh, a delloo boppam ci yàlla euh, arab mu jàng mu fas ca yàlla may nu defal nu jàmm ci xol yi nu jàmm ci xel yi defal nu jàmm ci réew mi hmm, loolu moom la jege na gën a ñaan suñu borom gardu nu ci ak xéew xéew xéew xéwal xéwal xéwal xéwal gu rëy ci biir nawet bi dama ñaan bu baax a baax a baax te loolu lépp itam nu gën a sant yàlla te lépp ci suñu lépp gën a gën a rafet njort gën a dal dalal nekk ci li war a nekk rek loolu bu ñu ko defee rek eh, li liñ bëgg daan ko am daan daan ñu ci tegal lu kawe suñu njort rek kàddu yooyu rek eh, laa doon jiital nanu góorgóorlu bu baax a baax a baax